de nous. Et la paix sera chacun de nous. Yama muri am si yow mi. Yama muri am si mi. Yama mu si mu si mu si te yama nga mi ñaan sa su te jàmm dina am saa te jàmm moom la ñuy ñaan. li Olof faral di wax gannaaw ay jàmm sàkku jàmm jooju moo waral jigéen ñi nga xam ni ñoo yeewoo ci commune bii di Ngor daal di ànd booloo joxante loxo ci àllarba ji fukki fan ak juróom-ñaar gannaaw ba ñeenti waxtu jote ci bëccëg gi. ba ñu yegsee ci tant bi nag ñoom ñëpp ànd nañu sol lu weex tàll di màndargal li nga xam ne rek mooy jàmm joojule ci kanamu journaliste yi ngir mën leen a yeggee li leen neex ak li leen naqari ci jàmmaarloo bi nga xam ne doxoon na seen diggante ak takk der yi. war wax ne lii bëggatuñ koo gis ci ngor ci faaxam abadan ilaa yow mu nekk loo xamante dañuy ñaan mu law ci biir Sénégal ci biir àdduna te. jigéen muy cëslaay lu mu mënta doon ci àdduna ñu gëm ni xale li dëkk bi comme gendarmerie ñoom ñëpp suñu ay doom ñoom ñëpp ñoo leen bokk jur ñoo leen ñëw na xari na lool tey si xolu yaay mu war a gis doomam sol tenue jàkkaar lox rakam wala jàkkaar lox magam di jàmmaan donc ñu wax ni ngor jàmmaleen ci bëgg jàmmaleen bëgg mu dellu si fi comme ni ñu ko àddina yëpp xamante parce que kukku jàmm ci ngor la fekk baax tur dafay kuyu borom parce que bu jàmm ku bi jàmm woon ñi dëkk wër ñu di ay autorité maanaam borom ndomi tànk yii yore réew ñi ñii yore àdduna ñii nekk ci ay institution internationale maanaam ay organes yu ëmb doo xamante ne réew mi àddina bi yëpp a ko bokk bon duñu ñëw nekk suñu dëkkaale jàmm moo waral loolu beneen bi koy gën a firndeel dañ ko jàmm la xam jàmm la am mooy bu tàngaay jotee àddina wër la këpp diir ñëw uti ji suñu tefes bu fi jàmm nekkul woon ñëw ñu bind jàmm jooju la ñuy ñaan mu delloo si ndaxte kat fi mu nekk nii ngor gañu xamoon ak ngor gi fi nekk tey benn ngor bi la li ñuy wax mooy ngor benn parti ngor la

ñuy ñaan ñun ñii dëkk ci dëkk bi ñi ñu wër ñi yore réew mi yéen ñii tey jàkkaarloog ñun ñu leen di santo au passage muy journaliste yi koy wane fépp ci àdduna di wax wane li ñu nekkee nooteel bi ñuy dund ñu ñaan dellu ñaan ñun ñëpp jàmm mën fi nekk ñu wax ni jigéen Ngor wax ni mënatuñu dem marché parce que xel mu dal mooy dem marché xel mu dal mooy taal xel mu dal mooy tàgg ñu ñaan loolu yëpp pour que mu dañ nag ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxo ñaari nit ñooy dox jàmm benn nit du dox jàmm li ngay firndeel mooy pour que jàmm jooju mën a nekk lu sax fii ñu taxaw teme gendarmerie taxaw buntu Ngor lañ ne na dañ na dañ na dañ na dañ allo wax ne ñun jigéen ñi ngoon ñii di kilifa ñii parce que bu ñuy wax kilifa tey ci kër te dañuy yëg bi jigéen ñi dajale ko. jokkoo góor ñi ñu nekk seen kilifa waaye ñu wax ni dañu am ay mag ñuy ay maam ñii làq nañ seen téeméeri at ñii lu ko des waaye di ay mag daan xëy di doxantu waaye mënatuñu ko parce que ñu ngi ragal boo ñëw seexee tànk seexaat beneen ay gaz lacrymogène bëri dogaale leen bon nag ñuy di sàkk si njiitu réew mi nga xamante ne mooy njaboote lépp moom la gis. suñu soxla muy soxla bi muy ñu laaj suñuy doom yi ñu tey ñu bàyyi leen ñuy laaj ñu réew mi ne ñii gaañu ñii te bokk ci ñun di suñuy doom tëdd ci lali hôpital ñii tey ñu ngi eh, eh, eh, rek am na ci ñu nekkoon ñu leen di opéré ñu ñaan ñooñu tamit taxawaay bi ci wax ñu taxawu leen ko waxaw seen jaboot parce que ñun ay borom kër lañ et

te dal am jàmmoo mën a am dal ñoogu mu ñu ñaanoon moom lañ def tey kon nag joxe nañ li ñu yoroon ci sunu loxo ñuy ñaan beneen loxo bi ñu tàllal ko delloo ñu sunu njaboot beneen bi fajal ñu sunu njaboot te bu loolu weesoo parti bi nga xamante ne bii moo waral coow li coow li lépp moo ko waral li ñu fi ñaanoon sa commencement ba mooy tax lii am muy def fa lycée ba suñu doom loru pour fàttaliku ko pour wane ni ah deewul ci nax saay ci nguur nax ñu wax ni delloo leen parti boobu yëpp ndax lycée bi ñu bëgg pour suñuy doom bi ñu bëgg pour suñuy doom te ñu nasee ko foofu ndax zaahir a ngi ci baati na ngi ci ñu sottal ko foofu ñu ngi dellu di ñaan askan wi yëpp askanu Sénégal askanu Ngor képp kuy doomu Ngor nekk si bitim réew xam nañu sa xel dalul waaye tey ci lii bi ñuy wax ñu lay ñaanal nga dalal sam xel feexal sa xol parce que am nañu yaakaar ni bi jigéen ñu jógee pour wax ni ñoom ñi jiite njaboot yi jàmm lañu bëgg dina dalal seen xel ñu bokk ñaanandoo ñoom ñëpp wax ca si jàmm addina bi yëpp yàlla def fi jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal def sutura may ñu teraanga ak wér ak wérle si suñu njaboot di santaat journaliste yi di santaat magi dëkk bi rawatina jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi wasalaamaaleykum ci pàttali nag jëm ci jàmmaarloo yu tar yi nga xam ni doxoon na ci diggante takk der yi ak ndaw yi nga xam ni ñu dëkk ci commune bii di Ngor ba mu joon jur xale bu jigéen bu ci faatu doon wuyoo ci turu ajaa Diallo nekkoon classe d'examen pour l'entrée en sixième moom nag ak robam jàpp nañ ko ci alxemes ji gannaaw ñetti waxtu ci bëccëg gi foofa ca armée lu musulman yu Ngor. sera nous et la paix sera sacre de nous. Et la paix sera sacre de nous. Yama muri am si Yama muri am simani Yama musi yao musi Te yama ngaminya sasune. te jama dina am saa su ne te jama moom la ñuy ñaan